opposition bi rate wuñu ko benn yoon seen i kàddu lañu yëkkate xam ne ne élection présidentielle yi bëgguñu mu organiser ko ndax dafa far noonu la ko yéen i gi di Walf Quotidien xëy fësalee leen aussi yéen kaay gii di la tribune xëy dellu soit ci wàllu parrainage ko wax ne fu mu toll nii Ba mu ngi cootu ci 3 millions ak 700 mhm. mille parrain noonu la ko yéen ndax Amadou Ba war naa gën a ëpp doole kii di président Macky Sall mhm. ndax lii nekkul ay waxi kasaw kasaw lu yéen kaay gi moo xëy fësal loolu yi Abdoulaye nangoog yoor yoor moom dafa xëy samp bëgg a xam waa Soleil moom ñan la ñuy fontoo <laughs> yéen kaay mhm. parce que Amadou Ba bi 3 millions 782 mille parrain fan la ko mën a jëlee. question la boo xam yéen kaay gi mu ngi koy fësal ba tax ma xëy samp laaj bëgg xam daal yéen kaay gi di la soleil ana ñan lay fonto ñu la ko yéen kaay gi di yoo yor xëy fësal. Euh, source a. yéen kaay gi di source a ci jamono bu fekkente ne Ba. ma ngay fësal ni am nañu ñetti millions ci ay panne ci jamono yi la waa parti Pastef ñoom nee nañ seen mili seen yéen ak seen bëgg-bëgg mooy mm-hmm. am lu ci toll ko ñetti millions ci ay panne wala ñetti millions kon yéen gi ne neexul ba neexul waaye ñoom ñii ñëpp amu ci kenn koo xam da ngaa tegu ci yoon noonu la ko yéen kaay gii di source ak xëy fësal Abdoulaye ngoog euh, leneen lu fës ci 24 heures 24 heures yéen ne euh, euh, Karim Meïssa Wade mm-hmm. daanaka yéen kay gi nag xëy samp laaj bëgg a xam candidat boobule di Karim Wade kan la fas yéene ñëw si biir réew kan la fas yéene ñibbi si ñooñu la ko yéen kaay gi di 24 heures xëy fas yéene donc levi la verdict yéen kaay gi di verdict na caution poste Karim Meïssa mm-hmm. nee na mm-hmm. waaye laaj bi samp mooy Karim Meïssa Wade kañ lay jibisiwaat fii ci biir réew noonu la ko yéen kaay gii la verdict xëy fësale ngoog euh, le mu fësal yéen kaay gii la mandat ni Karim Wade mujjee naa la génne xaalis bi ah. joxe na li nga xam ne ni moom moo di euh, caution bi waaye leen aussi loo xam yéen kaay xëy na ko fësal te mooy sommet mondial ci wàllu jàmm mhm. dañ ko doon amal fële ci euh, kër euh, maanaam centre de conférence bi ñu defee Abdou Diouf foofu président mhm. di défendre réew mhm. a a a kaay bi di l'info ne daje moom la occasion la woon ci président Macky Sall mu xaw a sànni tuuti ne fa liberté am fa li def mooy jiital waxtaan ndax jàpp ne lépp lu ñu def ci waxtaan amu si daanaka du mujj fenn noonu la ko yéen a gi di l'info xëy fësale. Euh, Sud Quotidien feelu ko. yéen a kaay gii di Sud Quotidien Macky Sall ne président Macky Sall daanaka bàyyiwul dara wax na ci wàllu gouvernance mondiale. Mhm. wax na ci coup d'état Afrique yu bëri yi nga xam ne ñu demeeku ba ci réchauffement climatique bi noonu la ko yéen a kaay gii di Sud Quotidien xëy fësale. laas euh, génn gu fa yéen a kaay di laas ne président Macky Sall neexul ba neexul waaye fu mu toll neexul ba neexul waaye ba mu fi nekkee ba léegi moom moo sol mbubu avocat maanaam Afrique. parce que waxtu yëkkatee kaddu rek pour défendre Afrique la noonu la ko yéen a kaay gii di las xëy le quotidien lu ñu tàttanal Afrique la mhm. li nga xam moo si jiitu d' mooy nañ jiital waxtaan parce que lépp lu waxtaan amul rek nañ jàpp ne yokkute mënu fa am noonu la ko yéen kaay gi di le quotidien xëy fësale euh, réew mi quotidien réew mi quotidien ne président Macky Sall ma ngay woo rébellion mhm. nañ maanaam ñiy rébellion du coup d'état mhm. nañ teg lépp ci suuf maa nañ ko te jéem a liggéey loo xam ne naa développer Afrique. parce que loolu moo gën a am solo. am solo dafa ay coup d'état ñu la ko mm-hmm. yéene kaay gi. ci di réew mi xëy Fassal Abdoulaye. ma ngoog Dakar Times. waaw Dakar Times aussi loolu xëy dellusiwaat ah, wax ci échange yi nga xam ne amal nañ ko démb

dana fas yéene ñëw fii ci Sénégal mhm. eh, ngir fekkee sa ubbiteeg sanctuaire euh, marial bu Popenguine loolu kon ñu ko jàpp ni que juróom-ñeenti fan euh, ci weeru euh, décembre ma critique Coupe d'Afrique des Nations bi nga xam ne nee nañ Sénégal dafa mën yéene organiser gannaaw Côte mhm. d'Afrique boobu bu ñu deful ndànk dana hypothèque wu li ko waral mooy budget bi nga xam woote nañ ko sport ren ji dafa tuuti lool mhm. ñaareel bi aussi dafa am ab fantasiro gu doy waar goo xam dafa dox ci diggante Lat Diop muy jëwriñ ji dénk wàllu sport ak Augustin Senghor muy jëwriñ ji maanaam mi jiital fédération sénégalaise bu football noonu la ko yéen a kaay giri critique xëy fësale ma ngoog euh, stade lu mu fësal des champions cinquième journée Paris Saint-Germain ak bu fekkente ni bëgg nañu des ci course bi faw ñu gagné faw ñu gagné euh, suñu lamb Ibou Diouf di mag ci Modou Lo yëkk ay kàddu wax ni Euh, ñuy wër di wax naan euh, Modou Lo dugg na Pikine am na fa presque quatre victoire nee na dañoo juum. Mhm. Modou Lo cinq victoire la fa am ki mu njëkk daan mu ngi tudd Moussa Diouf Moussa Diouf nag mbokk ci écrit Boy Niang. Mhm. deux mhm. moom la fa njëkk daan léegi nag ki mujj daan mooy Ama Baldé lu moo yóbbu victoire ba ci cinq. léegi nee nañu nag bu daanee Boy Niang deux te nee na falaa bu dañ koy daan. moom mooy victoire boo xam Modou Lo am na ko ci biir Pikine. ndax loolee Pikine dina ko nangoom déet li ci kanam rawi la gën.